Mm-hmm. bu gën a garaaw ndaxte da ngay toog ñu naan sax amaana ñàkk déggoo bi nga xamante ni amaana laataa sëñ sëñ bi di làqu mm-hmm. parfois sax ci omoro la daan jugee mm-hmm. ay wax yu daan jugee noonu xam nga nag gars yi kenn mënu leen tere wax wax moom dama lay wax ñaari baat nga xam ko tey kenn mënta tere nit ñi ñu wax te dama la wax ci sama njëlbeen kàddu ne la masaka sor laa juddoo coow ma <laughs> xam nga lu oh, leer oh, oh, ku jàpp ne di nga coow Omaro ba ñu xëy suba ñëwee la rip dee na mm-hmm. ndax nga sa bopp mm-hmm. coow rayul Omar mm-hmm. ay waaye booy laa njëkk dégg sama àdduna man dama judd rek gis marché ba nit ñu yuuxu ñi naan ay waaye booy ñi naan ay wa laaj ay wa sompaat ay wa jën ay wa karoot ay wa njambi ay wa nafi wa kaani dëgg ay wa kaani muy répété ci sama nopp bi coow li bari lool ma yaru ci màgg ci ba nii ma toll kon du coowamee ray man d'accord mais dama la wax baat bu wér mooy nit ku ne nit kese nga. Mhm. xam nga man laa gëmul mooy tele bi tàkk na naa wane ne jinne laa. Mhm. télé bi tàkk na naa wane ne walliw laa. Mhm. télé bi tàkk na naa wane ne xutbu zaman laa. télé bi tàkk na naa wane ne maay ki mag. bu télé bi fayee nga def yëfi saay-saay. gëw ma lool. man li ma gëm mooy caay-caay gi may wane ci suuf. bu télé bi tàkkee dama koy wane. waaw parce que nit da ngay dëggu bëgg ñu bëggee ah mais da ngay dëggu kon laa gëm mooy amuñu problème mhm. mais nit ñay dugg ci suñu diggante wax ay mhm. wax mhm. ñii dem ca moom wax ñii ñëw ca man wax wax yi daje ku ne ci ñun ñaar gis sa bopp tee sa bopp léegi juboo waaye nag yëfi gone la woon waaw léegi ñu ñëw ci juboo bi nag juboo bi ba mu jotee am na ku ko sababoon kenn sababu ko daa ñëw naturellement naturellement la ñëw ci baas la ñu daje mu fekk ma fa maay rakk mooy sama mag tey tubarkàlla. bu lëg lekkee alom na ko gën a may coy. moom lañ nag ñetti way yu baax yi ma njëkk a bind. Guinée ku mu wër àddina Sénégal xam ma ci mm-hmm. mais moom lañ nag dafa jàpp ci bind bi macha allah am na ci bayit yoo xam ne ay bayitam la ci xelam la jóge mm-hmm. Guinée ci làmminam bi mu jox ma ko ma bind ko ah, air yi am na ci air yoo xam ne air boppam la moo ko jël jox ma mm-hmm. am na ci way yoo xam ne moo ko jubbanti na ma ko waye woon baaxul moo ma ne dafaraatal way bi fii da ngay yëkkati fii da ngay wàccee fii nag ba ma xal na saf ba mu génn toj àddina kon bu ma dee as gor amet fekk ma ci baas ah lu ma jàppoon war naa ko bàyyi moo waral suñu daje gu njëkk man la fekk si ci baas meur microcentral bi mu ñëw ma recevoir ko akolaat ko fóon ko dalal ko introduire ko jox ko mu way feccal ko teral ko waaw parce que looloo ma war mm-hmm. téppi nag boobu ba léegi jàmm ngi am ki suñu diggante gise bi bareetul ndax amul jot moom mhm. amatuma jot mhm. ndax ndaalaan la ci li muy yëngu mhm. te àddina bàyyi nanu ko xel ma ne ndaalaan laa ca fa ma nekk muy ci wàllu télévision te àddina bàyyi nanu ma xel ci bi ma arrêté way yi waaw responsabilité yi bari na 3STV ngi taxaw fondation baa ngi taxaw leneen ak leneen a ngi taxaw tax gise bi yombatul waaye ñi ngi sikki jàmm ndax dina ko mujjee woo téléphone man amet soxla ko bëkkat sama téléphone na ko k woo ko matul weer te day wuyu ñu mhm. waxtaan tënk ci ay kàddu mhm. gise bi yombatul laay tax tey jii nii ak lu mu métti métti bu dëgg jotee mu gis ko affronté ko mhm. moom laa bëgg aussi nga ñaax ko ci xale yu ndaw yi nga xamante ni ñu ngi ci cant gi am luñ ci bëgg te di di di delluwaat di ressourcé waat dafay am solo ndax ak lu mu métti métti jël sa téléphone woo la am ah Omar lii de bëgg naa nii nga daal koy am loo ko ca conseillé noonu la valable ci Mouhamed Niang noonu la valable ci ñu mag ñi su ko defee ñoom ñu bañ a jàpp ne ay ñu supérieur lañu. Mhm. ñu redescendre sur terre. Mhm. Euh, ban ban conseil nga leen di jox su ko defee nag man kontaan. ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf Thiat. Euh, conseil bi ma leen di jox day wax dëgg yàlla. Mhm. xale yi xanaa dafa mënul ñàkk rek. ndax làbb li fas taxut a fasaraw a nga ca kanam. te lu fas daw daw daw du tee ñu làbbali ko. te waa góor te rew laa doon góor waaye dana yokk sax ngóora xale yi ay jàmbaar lañu barke sëriñ Bamba euh, yëg nga ne man tuub naa. Hmm? waaw. ah loolu loolu waxoo ma ko de. waaw tuub naa. Ah, léegi foo foo nekkoon bay tuub sax. waaw xam nga néew moon fenn. waaw maa ngi ci réew mi. waaw ne ci diine ak lislaam hmm. tudd Seydina Omar bun Xataab. Hmm. waaye boo déggee man a la tuub naa mooy sab sëriñ daa am lu ko naqari ci man. Ah, te waaw. ah yëgu ma bi mu ma ko digalee dama koo jëfe maa la koy wax man ndax man du man dama laa bëgg man maa la koy wax. mooy lan ndax man du ma nëbbutu. xam naa loolu. man kenn du ma rey ci néeg Mhm. man bëy laa man bëy laa boo xam ne du lu ma rey ci ron dool mukk na seet bi xam nga ne bokk na ci li tax tey ñu bari naw la ku may rey man dañ ma yóbbu ci penc ba tër ma aca ñu ñëw ci li tax ñëpp yëg na dee naa li tax sëñ bi damay tënk ci xale yi dooga ñëw ci sëriñ bi tub bi ñu tëjee ko jéena muy Tawfekh Mbaye mhm. muy dégg daal mhm. muy moor muy yàgg Pape Mboup muy Pape Mboup eh, muy kii nga xam ne mooy mooy mooy mooy ay yeneen xale yi ku lim juum. d'accord billaahi. Mm. wallaahi wa taalaahi ñi ngi ci li leen war. ndeysaan ay gor lañu. Hmm. ay jàmbaar lañu. d'accord ay xale yu baax lañu ay xale yu mën a way lañu. ok gis nga problème bi am ci cant gi. Hmm. moo am ci showbiz bi. d'accord mag ñi ubbilul seeni buntu gone yi. ok c'est lii mooy problème bi. waxtaan waxtaan dëgg ca la est-ce que du dañuy bañ ñu pousse leen. waaw waaw peut peut-être mais yàlla mi maye. mais mais mais mais yàlla. Ah. mooy maye. Mhm. te gis nga am na ci loo xam ne. Mhm. boo jàppee le boo ko defalee sa rakk mu raw la juum nga. te li nga yor boo ci compee jox keneen taxoon nga tardé. li tax ma lay wax ne juum nga mooy. Mhm. mais tamit est-ce xale yi jug nañ dem ci ñooñu. xale yi jug nañu dem ci ñooñu man xam naa ci dara. waaw barke Seex Saaliu Mbàkke du ma leen nenal xale yi ma ñoo ma soxla ah. d'accord xale yi ma la tuddal. ñoo ma soxla. d'accord man maa yorulu xale yi bëgg. xale yoruñu lu ma bëgg man. xale yi ñoo ma soxla. Mhm. mënoo ñu maa soxla ba pare soxla ci man image soxla ci man tey bu ñu amee lu ñu yittewoo ñëw ci man ma rek sama doole def ca ba pare meewul bëtuko di leen dey du ko def mhm. mais dama la wax xale yi cantaakun yi way Cheikh Béthio li leen war def nañ ko mhm. seeti nañu seen i mag woo nañu seen i mag seen i nag la ñu ubbi leen bunt yi leen te dooleel leen jàppale leen te defuñu ko defuñu ko ok loolu man nag sama jaan wàcc na léegi ñëw ndax man ñaari xale yi nga xam ne yàlla dogal la ci sama ginnaaw gi lañ nekkoon di ma aaw. Mhm. muy dégg daaj ak Mor Thiam. Mhm. bi tukki jotee yóbbu naa leen France. Mhm. ànd ak ñoom sant fa sëriñ bi. bi takk jabar jotee takkal naa leen jabar. kenn ci ñoom muy Mor Thiam doomam bi di 2STV bi bi bi bi tas jotee ngir ñu xamante nit ñu baax ñu ngi doolal leen ku ci ne jàpp naa ci sa loxo yóbbu la ci samay nit présenté la fa waxal la fa lu baax ñu téye la fa ba di la fa teral ci ba di la fa teral te yow ci côté bi nga ko amee amaana keneen amee na ko ci beneen côté très bien su léegi nag foofa laa woote mooy xale yi topp ci suñu ginnaaw di ñu aaw mhm. ak nekk suñuy rakk di ay mhm. jeune talent war a ñëw ñun seeni mag nañ leen ubbil bunte yi te uuf leen ci rajo dooleel leen aca jeex na léegi ñu ñëw ci tuub gi dégg naa la Abdourahmane Fall dinañ teg léegi uh-huh. aca ñu ñëw ci tuub gi ak yeesal gi ak nga xamante moom nga wax sànq waaw eh, xam nga tey mm-hmm. boo tuub naa sax nit ñi <laughs> ndax baatub tuub uh-huh. ñi ngi ko daan dégg ku jóge ci aw diine tàmbi ci diine lislaam waaw lañ daan gën waaw waaw yeesal loolu amul <laughs> waaye ab taalibe mm-hmm. muy indi baatu tuub mm-hmm. mooy sab sëriñ jàkkaarloog yow wan la ne kat nekkee nga lu ma neexul. Mhm. nga ne ko sëriñ maa ngi tuub. mbaa du moo tax nga wattu tey jéggalu. mbaa du moo tax nga wattu la. pour re euh, maanaam repartir à zéro en fait. très bien ndigal la. Mhm. tabarke Seex Saaliu Mbàkke. Mhm. ñaari at yu mujj yi muy diggante fin deux mille dix neuf jàpp deux mille vingt et laa sëkkal bopp bi ci la karaw gi jug ca kaw. ba ba ñañu. waaye diggante booba jëm ci ginnaaw lépp dama daan watu. waaye mosuma watu watu bu rafetee nii. waaw rafet na de. kat barke Serigne Bam waaw dama lay wax li ko waral wax li ko waral musuma watu watu bu rafetee nii. te it ba ma juddoo laa rafet nag. Mm-hmm. ma lay wax lu garaaw. bu ma la wanoon sama photo bébé. Mm. buñ la nee kii Omar la doo ko gëm. atiwa léegi loo defoon man dama la expliquer lu garaaw caat. caat xam nga lu tax ma bëgg a leeral maa ngi ñaan kii kii nit ci ñu dimbali tuuti may tuuti ñu leeral parce que xam nga tax. xam ñu war ñoo may ñu leeral. sama génn yombul. déedéet. ndax aw ma jot. Mhm. ba nu ma génn de. Mhm. su ma sañoon nii nga ma recevoir tey. gis ma beneen télé ak beneen chaîne. Mhm. recevoir ma noonu. bañu ko. waaye Alaaji Ndiaye 2 responsabilité yi mu teg sama kaw. dafa moo ma ko moo tax damay bëgg su ma génnee. li war a leer leer. dama ne. ba ma juddoo laa rafet. samay photo bi man bu ma la ko wanee. buñ la ne jigéen la. doo ko weddi mais dama ne. leer gi ma yëg ci suma jëmm. internationalisé waaw fii ma toog leer gi ma gis sama jëmm ji. Ah. taar gi ma yëg ci sama jëm ji. Mhm. bi ma juddoo ci sama ndey ak sama baay ba fi ma toog musuma ko yëg. te xam nga lu ko waral. lu ko waral jëfe ndigal. macha allah bàyyi tere. waaw. Mhm. parce que damay yar sama kan. Mhm. ci loo xam ne si privé. man la concerné. lu waral ma yar ko. sama yëfi bopp la. mu arrangé ma nag. doon ma gënal lool doon ma neex lool. sëriñ bi jox ma ndigal. na ma sa bopp bi nii mu mel bëgguma ko. d'accord boo yeggee Dakar nañ ko wat. ma ne ko du ma xaar Dakar. sa bàyyi ma moom. Mm. man sa alal bàyyi laa. loolu rek la la mere sa ndigal rek laay xaar ci sama diggante ak yow. Mm-hmm. te ndigal jëfe mm-hmm. maa ngi jóg léegi dama waxta ji ko. Mm-hmm. ma beneen da ko topp mooy na nga bàyyi sol yëre tubaab. ndax day seetlu naa ci réseaux sociaux yi nii coow yi mujj yi nga fi am yépp nit ñi woo di ko wax dara waral ko lu dul yëre tubaab yi ngay sol muy seere ci sa jëmm ba ku ne di jug di ci wax bàyyi ko ma ne ko ndigal mooy dañ sama jëmm bis ni tey incha allah yow sax dangaa am nag ñoo àndal muy Swiss Gold très léegi nag lii mooy tuub bi mooy mhm. li sëriñ bi bëggatul ci man mhm. bàyyi naa ko mhm. te tey laa gën a rafet ah. tey laa gën a jot tey laa gën a leer ah. loolu moo lay wan ne am ndigal ah. bu ko sa sëriñ joxee boo ko jëfee jëlee ci ngërëm boo ko moyee jëlee ci mbugal ndokk yàlla macha allah ba ma dimbalee ba daray rëy ak daray naagu ak daray succès. Mhm. feeñul ci samay bët. Mhm. ba mu tere maa jëfe ndigalu doomi Cheikh Béthio ji. parce que fa nga jógee la nag dañ laa tarbiya te loolu rek nga war a doxee. en tout cas c'est un réel plaisir kon nag ma leen sant may tëj sama kàddu ci sant njabootu Cheikh Béthio. billaay di ci beral ak sant Serigne Saliou Seydina Thioune. ndeysaan mi ma tuddee suma doom sama xarit sama Serigne. Mhm. ndax day fii tub bi jaar. ba ndigal li tàbbi ci sama kaw ma jëfe ko. bañ ñi ma mere woon ñëpp. bëggaat ma uh-huh. ñi ma jéppi woon ñëpp bëggaat ma uh-huh. ñi ma ñi ma eenaloon uh-huh. ubbiwaat seen xol defaat ma ca te dara warul lu ko lu dul maa ko jëfe loo ci jàngat waaw li ma ci jàngat mooy dama réeroon waaw caat dama wax sama tàmbali wax na nit laa waaw mais nit mooy juum man un yi ñu génn diggante septembre daa ak septembre ren li ma fi def ci ay erreur li feeñu la ëpp li feeñ Ah, ah, maa nga lay wax lu garaaw exclusivité laa la jox tey. waaw léegi léegi léegi mariage. waaw parce ko waral. mariage quand léegi waaw dama réeroon. Mhm. mariage bi laay tëjee. Ah. waaw dama réeroon. xam nga lu tax ma réer. nañ la ne man caat. tarak waaw. <laughs> <laughs> maanaam sama rakk bi. a bëgg yàlla xam na ko. acca dama réeroon. Uh-huh. xam nga ma mhm. dama am lu ma jàppoon. Mhm. ak lu ma gëmoon. ak ci lu ma nekkoon. jàpp ne fii baax na mhm. nekk du foofa sëriñ bi ciy dogalam mhm. jaar ci njabootam bi gind ma mhm. delloo ma fa ma ne woon te muy sama cant waa léegi man su ma dee as gor lu ma nangu bu baax moo tax dama nangu ni dama réeroon day yombali doo sëriñ bi gindi na ma maa ngi koy sant bu baax waaye fa mu ko jaarale du ma ko cof muy ci sëriñ Saliou ndigal cuun mii di doomub Cheikh Béthio di xalifaam billaahi wallaahi wataalaahi am na ci loo xam ne balaa ngaa xam ni mu toll mu jóge ca guy ga mhm. ne tëll ci suuf daal di toj buy bu tojul doo xam njariñ xam nga gravité erreur yi ma doon def ci un yi yii te dama ne li feeñ man garaawul ci man garaaw na ci ñi ma bëgg nag parce que ñooy xuloo ñooy xeex mais dama ne li feeñul ci ay erreur te ma def ko diggante septembre daaw septembre ren moo ëpp léegi nag bu buy bi tojee mi bi ndigal li tàbbee ba ma jëfe ko ngërëm li daaj sama te la mbir yi melaat ci man ni téléfilm mhm. image yi commencé waat ci septembre daaw mhm. ba septembre ren ma di ko seetaan xam ne man maa ngi woon ci loo xam ne mhm. bu dogal yàlla tàbbil woon sama jëmm njabootu sëriñ bi taxawu ma taxawu rafet wii ñu ma taxaw ba ma dëpp barke sëriñ Bamba Mbàkke caat balaa ak bi jeex mbir ñi ma doon dal loo xam ne fa la ñuy jaaree ne c'est fini booba xam ñu des génn ci mbedd mi xeer yi dal ak yat yi ku ne di ma dàq dut fu ñu jaar na ko rey <laughs> barke Cheikh Saliou Mbacke mi ma yaakaar. kon man sant naa sëriñ bi. ci bi ma dimbalee. ba ma réer. ndeysaan te cat dafa sew. Mhm. ba pare caat. Hmm. bàyyi nga ne liggéey nit dof loo ko. Ah. mu dof dofi boppam dafa am. moom lañ ma defoon. luñ la defoon. man caat yëg nga ne damaa defoon. lu la daloon.